salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen baalu xaq ñaan borom bi subhanahu wa taala ba leen jëgal bu ko defee tey dañuy reprendre at xadis bi ñu jàngoon démb muy wax ci xabatu sawda dafa am benn njuumte bu ci amoon ci firi bi am na benn mbokk bu ñu ko signalé démb sax yal na yàlla fay ko moo tax foog ñu reprendre at ko tey bu ko defee fu mu jàlloon rek nañ ko fa jàllale waat ndax ñu mën a rectifier njuumte googu incha allah yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadihi alhabatu alsawda shifaun min kulli da illa min assaam saxiixu albuxaari wa muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bi ne pepp bii di xabatu sawda wax nañu xabba mooy pepp sawda mooy lu ñuul dafay saafara bépp jàngoro ba mu des dee saam boobu dañ ko firé woon euh, poson de poson de dee lay firi ba mu des de maanaam bépp jàngoro lay saafara ba mu des dee ku tàggalikoo bakkan te xadd xabatu bu barkeel la lépp lu ñuy jaaxal ci jàngoro bu mënti doon bu dee jàngoro yi dew der la nañ koy diwo bu dee yi biir la nañ koy naan boole kook lem wala jàngoro yu bopp lépp lu jëm ci wàllu biir mën nañ koo naan buñ koy naan mën nañ koo booleeg lem wala boole ci ndox bu tàng naan ko incha allah yàlla dañ def shifa boo koy naan jàng fatiha rek naan ko incha allah sunna la te it day saafara ci lu gaaw ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu dee jàngoro yi der la nga jël ko rek diwoo ko nga ko mënee booleeg iwil wala karité wala mënti doon di ko diw seeram yàlla leen ci defal saafara incha allahu taala wala tulkuna loolu mooy li tënk xadit bu ko defee ñu ngi ñaan mbokk yi fépp fu mu jàlloon nañ ko fa jàllale waat ko defee ñu mën a rectifier njuumte googu <coughs> ndax xam-xam fam benn borom xam-xam am Abdul Hamid Cishki mu ne njuumte ci xam-xam dafa mel ni euh, médecin buy opéré bu juum la muy yàq yi bari bu defee rectification bi ñu dimbali ñu ci rek bu ko mën a jàllale fu duggoon rek ñu jàllale ko waat ko fa incha allahu taala والله أعلى وأعلم بالصواب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته